waaw maa ngi nuyu axlu laayeen yëpp di nuyu umma islamia bi di nuyu sénégalais yi di nuyu waa Cambérène waa Ngor waaye di nuyu waa Yoff bi ñu nekk nag waaw parce que dama dëkk Yoff dëkk ak euh, kilifa Yoff dëkk ak kilifay diine yi dëkk ak waa Laayeen itam ñu at bu jot ñuy def appel de Laayeen bi nga xam ne ren mooy téeméer ak ñeent fukk ak ñeenteel bi donc yoon lañu teew fi di ñaan yàlla ñaan yi fi nangu yëpp ñaan yi fi ñaan yëpp mu nangu te doon njëriñu Sénégal ak doon jàmmi réew mi waaw message bi mooy message yu jàmm message yu dal parce que jàmm rek ci la lépp xaj looy mbëbët rek dafa fekk jàmm am ba pare ba tax na ñun sunu appel rek mooy li kilifa diine yi wax fii jibal ko fi ci ñaan jàmm ci réew mi euh, woote waxtaan ndax réew mi moom kenn du ko xëccoo ñaanuñ yàlla di ko séddat dañuy ñaan di ko waxtaanee rek di déggoo ci lañ mën a déggoo ndax même ñuy xare sax ba xare ba métti ba moom ay faat bakkan yàlla nañu ci yàlla musal fa muy mujje mooy nit ñi toog waxtaan rek Sénégal nag sunu cosaan mooy diisoo ak waxtaan ndax nit ñi moom mun leen bokk gis ñëpp mënuñu bokk bokk li ñu gis ku nekk di nga am wute gis-gis ak sa morom waaye li am te doon li nga xam ne moo jig réew mi moo ñuy toog di waxtaane lépp suñ ko waxtaanee moom te bokk d'accord ci la ñuy waxtaanee foofu la jàmm mun a waa xëj na bërëb bi c'est pas indiqué d'ailleurs waaye puisque dama ko laaj te dafa toll ci jamono président de la république kaddu yu mu jibal du kaddu militant du kaddu parparloo kàddu président de la république réew mi la yilif ñëpp daal di junj ay junj ci réew mi fi mu toll te du guléet junj na ko France 24 wax leen ne am nañu bëggoon a teg loxo ci réew mi waaye échoué nañ waxati ko waxati ko waa rikk nag nit junj day doon borom xel ki nga xam ne bañ ko xotalee cab nguur dafa jël lañ ko joxoon ci nguur yëpp delloo leen gëm yàlla gëm askan wi ki nga xam ne bi amee ay ñoñom ñu taxaw ne ko danga war a bokk ci li ñëw mu ne leen lu bëri coow li man duma ci bokk damay bàyyil sama bopp te yoon may ko mu bokkoon ci kooku naka lay commencé carrière coup d'état à 63 ans te wax ñëpp ne damay génn ne ñi ànd ak dal xol yi mun nañ bañ a ànd nit ñi mun nañ am lu ñu meree Macky Sall ku nekk sa bopp waaye bëgg Sénégal ak bëgg-bëgg Sénégal waruñ ko suul ngir bëgg di xeex ak Macky Sall loolu amul sens lépp li mu wax ñëpp gis nañ ko ñi njëkk a laaj ñu reporter élection yi ay opposants lañ ñooñu tey ñoo taxaw naan du ñu dem ci dialogue gis nga y a pas o au amuñu leneen lu dul waxtaan kuy ne da ngay politique te ne doo waxtaan loolu day fekk nga am ci pexe wa pexe amul faw waxtaan am faw ñu waxtaanee réew mi xam nu ñuy organiser élection yu am jàmm ñaan yàlla ñaan yiñ fi ñaan mu nangu. te Sénégal jàmm sax fi ba fax jërëjëf.